Mari Ndiago nee na ma xaritu Pape Gadiaga la. benn artiste comédien Mari Ndiago. ndax dafa def benn chanson boo xam ne single classe ci waa kër gi ci saay saay au cœur. moi je connais même pas ce benn non c'est mais artiste comédien la moom mooy déguisé comme. ah waaye góor buy tuddee boppam jigéen dinaa wax ci ay affaire yàlla ko yàlla non mais single bi single bi mu ngi dox pour man déglu ngeen ko. yàlla ko yàlla yërëm. waaw comédien la waaw. comédien il la comédie après tu vois. c'est bien c'est bien c'est bien. ok merci maa ngi leen di sant di leen gërëm tey gis ngeen comme nu ñu leen ko waxee woon ñoo leen ko promettre woon que ni kër gi la ñuy ñëw donc fas yéene waxtaan ak ñoom donc kër gi ñu ngi fii kilifa ak chat kon ñoom nag dañu am benn benn hymne boo xam ne nii saa à dire mën naa man maa sax man sax maa ko tuddee hymne pourquoi ma tuddee ko hymne mooy lan ci la ñu nekkoon ba léegi ku xam kër gi nga ne ñii dëgg lañ ñi ñu am fit lañ ñu ragaloon lu ñuy def muy benn son boo xam ne ñoom defoon nañ ko muy gëm li ñu gëm dëxëñ fépp fu ñu jëm jàmm la ñuy am kàttanoo xam-xam bali tàkk bët yi xëm bët yi xonk bali tàkk yaa ngi fàttali baa ma ñëw ci chat <laughs> <laughs> waaw non son boobu son boobu da doon yëngal mais son boobu da doon yëngal alliance. jàmm la ñuy am kattanoo xam-xam bari xo bët def bum kilifa caat gaja gaag wakat kat bum. waaw ah, non sama boobu da doon da dal quoi mais macha allah maa leen di remercier bu baax a baax ñoo bokk Kaolack. franchement ay frères yu xam nga donc di leen encourager ci engagement bi. xam nga rafetlu loolu du côté du peuple bu leen jaay seen média ah. parce qu'il y a de médias achetés au Sénégal et beaucoup de beaucoup de sites internet euh, manipulés pro état faites attention bu ngeen bëggee nit ñi seetaan il faut rester vrai. noo jàmm rek incha allah merci beaucoup.